mbokk yi déglu leen bés bu mag ñu ànd ci ak Fouta production mu boole ñaari jàmbaar ñaari ndaanaan ñaari espoir ci bésu le premier juin ci arène nationale nag lay xewee dér bi Fass ak Géejawaay du xam ngeen ni bu ñu tasewee du yomb kan kan la Fouta production boole déglul Pape Ndoye ñu naan ko le fantôme muy rakk ci Lac Rose bokk ci xale yi ñu gën a ràññee ci saison bi ñu weesu moo war a jàkkaarloo nag mbokk yi ak caatu Daouda Fall di rakk ci les 2 di ndoonoy Balla Gaye numéro 2 di xale bi waa Géejawaay yaakaar combat der la combat jàmbaar la waaye combat technicien drapeau Ousmane Sarr l'international di doomu Grand Yoff waaye mbokk yi Fouta production du yem ci loolu kese ndax caatu Baye Paté dina fa jàkkaarloo ak bébé Lambaye balañ bu ndaw dina fa jàkkaarloo ak Jams caatu Ndakaaru jàkkaarloo fa ak Pape Sagna booy Grand Yoff mel ni mi dina fa jàkkaarloo ak booy Kadam bébé Elton bu Géejawaay mbokk yi dina fa jàkkaarloo ak Lion bu Jolof mbokk yi Petit l'enfant dina fa jàkkaarloo ak Petit Zéné Nongolo Junior dina fa jàkkaarloo ak Onda caatu Njaago ak Alice ci bés boobu la ñuy jàkkaarloo mbokk yi ji nag en live la point du xam ngeen seen affiche te mën ngeen ko gaaw jënd seen ay code balaa muy xat li ci gën neex nag mooy am na ay image yu ci diggante Pape Ndoye ak Thiatou Daouda Fall seen wàllu préparation ba ci jour combat mbokk yi loolu mooy li war a am ci bésu le premier juin ñu ànd ci ak Grand Yoff bi Fouta production ak li boo xamante ne daf ko daf dafay marqué métier bi looloo waral nag donc ah témoignage yi grand vraiment kontaan nañ ci liggéey bi et vingt ans yi ah. yàlla nekk ay année ay année ay année yu bari vraiment référence ci journalisme. ah te ñu ngi la ciy jaajëfal bu baax. ci lépp lu ci def nga am talent ah, merci beaucoup en tout cas ñu ngi lay jaajëfal bu baax rek laa xam ne tu beaucoup de talent. merci nañ la bàyyi xel. dëgg la merci beaucoup grand en tout cas am na am na solo noonu la ñuy def aussi rek père père Bakane dafa am. lu xew parce que li xew. non xam nga père li xew da problème non père lu xew. ci bakkan dafa waaw xam nga problème bi mooy dafa am lu xew. xëy na nag nekkul loolu nag suñu yéene. tey Lac de Guiers nekk ci problème yu nekk. mais père Bécaye da nga da nga confirmer sa leadership ci làmb. wonewaat sa suprématie tey ci làmb. wonewaat que ne tey làmb nekkul ne da si nekk rek pour looy gañ mais da nga si nekk rek pour ñi ne si jafe-jafe. ñi ngi si tolof tolof nga leen di wallu te loolu nga def noonu tey ñu bëri dañ gën a am tey estimation ci yow muy man muy les amateurs muy les internautes muy euh, les sénégalais lambda sax parce que da nga defal Lac de Guiers loo xamante ko boppam. déedéet ñi mu bokkal leeg ba actuellement mënuluñ ko mënuluñ ko ki ko jur sax amaana tey am na yéene mais xëy na mënul de fexe fexe fexe ba defalke vingt cinq millions ñëw teg si la table mhm. loolu nekk loo xamante ni tey vraiment ñu ngi la siy félicité waat di ñaanal yàlla gën a dëgëral taxawaay bi gën a guddal sa fan fay la yiw bi. Hmm. mais euh, lan moo la lan moo la animé ba tey taxawaay boobu noonu tey nga am ko te Lac de Guiers 2. xam nga dara bés maa ngi lay nuyu. man sax damaa xuloo woon ak waa Lutte TV. <laughs> man waruma woon a ñëw man man Ibakan sax ma fi indi. ñëw du ma fi ñëw. man damaa xaw a franc tuuti ah, yéen. mais à partir de tey jubóo naa. Ah, <laughs> macha allah macha allah maa moom sama père la de. non moom dañuy gisee lu bare. dañuy gisee lu bare. macha allah lu baax la. waaw te vraiment di leen gën di encouragé. macha allah mooy li ma wax léegi ci làmb ci ni suñu làmb mel. ak bantamba lu tuuti yi dem na moom bu bokk ci. macha allah loolu lépp liggéey la. liggéey moo koy indi. parce que nit bu amee jomb dara jombu. macha allah waaw. vraiment te leen ñaanal. Mm-hmm. parce que gis nga ku nekk mën nga am li nga am te doo yàqal kenn. dëgg la ku nekk. Mm-hmm. yi bari nañu ñëpp bari nañu ku ne boo xëyee ñëpp def journal. dëgg la <laughs> ñëpp a yem. <laughs> <laughs> bon. làmb ji. Mm-hmm. man loolu moo ci sama mission. je so beaucoup de coups nag. mais sama mission. gis nga booy baax. baaxal. Ah, am na lu tax mu baax. lii baax gi du dëgg mm-hmm. waaye baax mm-hmm. wax dëgg mm-hmm. waxal dëgg dëgg gi am na lu ci làqatu ah kii gëmuma dëgg gi waaye neel ci dëgg rek Lac de Guiers li tax mbir mi dal ci panit mooy la ma waxoon ëmb ba ëmb bi Jackson daane waaw ndeysaan wax ju am solo ma ne ko booy. Mhm. lii ab ëmb la bun la boo ubbi te fekk ko ci xamoo ko lu ndam lii. Mhm. du ndamam. Mhm. ndam ndamu ndey parce que Jackson daanu na. <laughs> bokkatul. dëgg moo jël ndam la. dëgg la comprendre la ko foofu ca suuf soosa. ba ñi kenn gisul fenn fu taq soof la ko wàllu loolu liggéeyu ndey a koy def. ñun ñii ñëpp looloo nuy daal. Mm. lii ma indi ci ma indi xaalis bi. mënoon mm-hmm. naa dal ci keneen. Mm-hmm. parce que ki ma ko jox bu ko neexoon mu woo keneen. Mm-hmm. waaye man la gis. man la wóolu. yow la sentir. man la sentir. mu woo ma jox ma ko. ni ma demal jox ko mbokki Lac de Guiers. ma filmer ko. Mhm. am na ñuy wax pourquoi mu filmer ko dafa bëgg a wane wu dafa mhm. déedéet mhm. àdduna wóorul àdduna wóorul ta man dama am tour da am lu ma liggéey loo xam ne du ma ko yàq dëgg la dama koy filmer ba mu leer ndaxte kama ko jox dama bëgg mu gis ko xam ne maa ngi nii di ko joxee jox ko ko te ñam ko jox ba tey ji néewunu kenn joxu leen ko te bu doon da nga jaar ci dem rek yoor yoor dem jox leen ko dem ñu ne kon ëpp na ko ëpp na loolu ah mu dugg ak jël na ca. ñi si seen yoon newul damay xool démb may xool ci net bi ay nit di réagir. Mm-hmm. mais damay ree nekkati réew mi. Mm-hmm. genn wàll gépp li muy wax xamuñu ci dara dara dara dara ah, dara nekkate. Mm-hmm. dañuy xëy rek. di wax rek wut seeni wax rek. di wax daal. jënd wax wut seen connexion ah di di wut di wut ay vues waxal la loo xamante ni ndekete gars yi xamuñu dara dara dara dara dara dara ci wax ma toog ma ree ma ni bi kon nii lañ ko nara a jàppee mm-hmm. du noonu mm-hmm. nit a ma ko jox mm-hmm. ni ma demal joxe ko bu ma ci sama yoon newu ci def ko daal la dama koy def ngir yàlla defal ma lii waaw man ma defal ko li macha allah macha allah te la. Mhm. tamit. Mhm. lamb ji. Mhm. nanu góorgóorlu. lamb ji ambassadeur ne wu te lii bu laga feeñaa. <laughs> bu laga feeñ de. Ah dëgg na ci mbir yi. Ah ah. na ci promoteur yi. waaw dëgg la. ci ku ne ak démarcheur yi di wut ay contrat di dem di déposer ay ambassade donc feeñu lu ma dara arrêté. waay dëgg la laa dëgg la. te lii wërsëg wii ci làkk am keneen mën na ko cee bañ am. laa dëgg la. moo tax na nu def attention Lac de Guiers du ambassadeur Lac de Guiers xamul fa am. mbokk yi déglu leen bés bu mag ñu ànd ci ak Fouta production mu boole ñaari jàmbaar ñaari ndaanaan ñaari espoir ci bésu le premier juin. ci arène national nag lay xewee. derby Fass ak Guédiawaye du xam ngeen ni bu ñu tasewee du yomb. kan kan la Fouta production boole déglul Pape Ndoye ñu naan ko le fantôme muy rakk ci Lac Rose bokk ci xale yi ñu gën a ràññee ci saison bi ñu weesu. moo war a jàkkaarloo nag mbokk yi ak caatu Daouda Fall di rakk ci les 2 di ndonoy Balla Gaye numéro 2 di xale bi waa Guédiawaye yaakaar combat der la combat jàmbaar la waaye combat technicien. drapeau Ousmane Sarr l'international di doomu Grand Yoff. waaye mbokk yi Fouta production du yem ci loolu kese. ndax caatu baay paate dina fa jàkkaarloo ak bébé Lambaye. balañ bu ndaw dina fa jàkkaarloo ak Jams. caatu ndakaaru jàkkaarloo fa ak Pape Sagna. booy Grand Yoff mel ni mi dina fa jàkkaarloo ak booy Kadam. bébé Elton bu Géejawaay mbokk yi dina fa jàkkaarloo ak Lion bu Jolof. mbokk yi Petit l'enfant dina fa jàkkaarloo ak Petit Zéné. Nongolo junior dina fa jàkkaarloo ak Onda. caatu Ndiago ak Alice ci bés la ñuy jàkkaarloo mbokk yi lamb ji nag en live la pay view ci seen affiche point com xam ngeen seen affiche te min ngeen ko leen gaaw jënd seen ay code balaa muy xat li ci gën a neex nag mooy am na ay image yu exclusive ci diggante Pape Ndoye ak Thiatou Daouda Fall ci seen wàllu préparation ba ci jour combat mbokk yi loolu mooy li war am ci bésu le premier juin ñu ànd ci ak doomu Grand Yoff bi